mbokkee xaritu internet yi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant ñu am mbégte bu baax tey taxawaat fii ci seen biir émission laadum mooy émission bi nga xam ne dañ ko dégtal euh, jox ko ñi nga xam ne les jeunes éleveurs ba pare fexe leen découvrir wan leen sénégalais yi nga xamante ni seen liggéey bu rafet bi nga xam ne ñu ngi koy def aussi nekk ay jeunes di bay seen waar ci wàllu l'élevage tey ñu doxantu ba Grand yo fekk fi benn jeune boo xamante ne ni di wuyu ci turu Mame Thierno représenté bergerie Al Khadimiyyah tey moom la ñuy fas yéene waxtaanal won leen li nga xam ne mooy xar yi laadum yi nga xam ne mu ngi koy def mbokk li ñuy def mooy wan leen li ngeen xamante ne nii moom lañ fi jot a gis ci wàllu xar après ñu ñëwaat ak ak ak Mame Thierno c'est maintenant. Adam si fils de Grand Rane Grand Rane di doomu magistrat ak Linguère boo demee ci côté yaayam femelle benn femelle la dañoo jël Birahim teg ko ci Farba ba di doomu Gelawaar léegi da ngay gis ni Birahim bi day ñëw foofu ñaar yoon. ñu jël ko jël famel boobu juddu fa teg ko ci akim di doom si macha allah bu pamaasu Massour Mbodj akim bu Ibou Kebe yaayam judd yaayam doon famel bu yéeme bu extraordinaire ñu jël yaay ji nag teg ko ci grand ran saa waay juddu Adams mu doon maal bi nga xamante ni maal bu yéeme la boo xamante ni wax dëgg yàlla seddal na suñu xol yaakaar nañu sax na yegg si fii mais comme lu ñu doon waxee rek génétique kuy liggéey na nga liggéey ci deret boo liggéey ci deret waaw kuy liggéey rek nanga liggéey ci deret xam ni deret rek a wóor parce que moom booy xool liñ ko daan liñ ko doon doyee defal nañu ko parce que booy xool moo jur moo jur moo jur añëw bi añëw bàyyi waaw moo jur añëw bi bay taxal ma ko dafa xaja moo jur añëw bi ah ma ma tuddee ko sama jabaru mag gis nga ko moom LCS dala koy jox moom dalay jox LCS bu dil la ko mi ngi waaw kooku doomam la waaw kii nag mooy Boy Ndiaye waaw waaw daanaka boo xool mooy relève am xool ko amagul deux mois gis nga ko amu amagul deux mois yow mu doon relève am gis nga ko li nga xar deret nga xar bi ah maamam bu góor lay jur muy procureur procureur mooy def mooy def tampon bi fii ci loos bi yaa ngi koy gis kii mooy Boy Ndiaye moom doo am nañ ci yaakaar trop parce que ma lii lañ lay doyee waaw moo tax ba mu juddoo rek waaw ñu xam ne ñun géniteur bu ñu wut am nañ ko waaw mi ngi nii ki mooy Boy Ndiaye kii nag mooy nday gétt gi ki mooy nday Penda waaw waaw nday Penda ngi nii waaw di sët ci Bachir si di sët ci Bachir doomu Bachir direct moo ko jur ak benn femelle benn mâle bu ñu naan Poutine yooyu yamal da nga bëgg a tëb torop eh, mooy nday Penda di femelle boo xamante ni moom sama xol laa ko def parce que moom lépp moom la moom ba mu méttee ba léegi dafa muñ ba li fekk ko fi wax mooy borom gétt gi mooy ndey penn doon femelle doon doon femelle bu am solo nag boo xool moom def nañ ci ay millions ay millions lañ ci def mais maa muñ rek maa muñ rek waaw def ci ay millions maa muñ waaw. mooy. Euh, mbokk yi gis ngeen lool nga xamante ne nii fii mooy bergerie Al Khadimiya donc ki ko représenté di maam Thierno moom la ñuy fas yéene waxtaanal fi laaj ko jaar-jaaram fi mu jugee fi mu tàmbalee bi doore ak ni mu duggee ci xar yi ak xar yi lan mooy laadum dëgg ci kanam tuuti ak seen association bi nga xamante ni moom mu ngi ci nekk trésorier mu regroupé tous les éleveurs fii de Grand Yoff tey moom la ñuy fas yéene waxtaanal mbokk yi ñu ngi leen nuyu ñu dox tuuti gis ngeen xar ah asalaamaaleykum euh, Khadim ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi gi na ngay tey bàyyi nga si jàmm rek. di wax na auzu billah bisimilah inna waliyallah jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul gàcce ngaalama Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ñu ngi leen di nuyu bu baax ku si nekk ak santam di rafet lu seen déplacement bi ngeen ñëw di la nuyu di nuyu sa caméraman di wax ni yéen a ngi def liggéey bu am solo ci biir Grand Yoff kon nag ñu ngi tënk foofu kàddu yi rek bu fekkee am nga ñu posé rek ko ñu posé incha a wane jeunes yi nga xamante ne ñu ngi fii ci au niveau de Grand Yoff di yëngatu ci beneen anam muy wàllu élevage rawatina ci wàllu xar yi muy laadum mu nekk loo xam ne dafa nëbbatu au niveau de Grand Yoff tey ñu fexe ñëw ak suñu média pour fexe relancer jeunes yooyu au niveau national mais aussi au niveau international di jaajëfal bu sama caméraman mu nekk un jeune aussi ba pare nangu liggéey fu ma ko woo mu wuyu ma donc di leen fàttali kii représenté émission bi mooy Souleymane Jules Ba ñëpp ràññee ku nekk PDG du groupe Senclic Média donc tey euh, Khadim sànq comme ni nga waxee Mame Thierno tey yow yaa représenté bergerie Khadim mhm. mais tey aussi nekk trésorier ci euh, regroupement de tous les éleveurs de Grand Yoff muy régie donc depuis kañ. waaw ah, bool daanaka boo xam association bi euh, léegi mu def trois ans léegi mu def trois ans boobu ba léegi nag ñu ngi doxal wax dëgg yàlla bañ ko créé ba léegi gis nañ nañu avant ñu koy créé motivation bi bëriwul woon parce que gars yi xamantuñu woon mais bañ ko créé ba léegi gis nañ ni gars gën nañ motiver. gars yi gën nañoo xamante te élevage moom la fekk nit a nga xamante la lépp teraanga la te lépp tam partage la waaw moo tax xam nga association bi ba léegi nag gars yi ñu ngi si ay activité nag waaw mais nag xam naa bu ñu xuusee ba si kalam rek liñ ci mën a yaatale dinañ ko yaatal yaatal loo ko incha allah. ok merci ñu ngi dégg laadum nit ñi naan laadum ba pare Sénégal li ñu tàmm di dégg mooy xar. donc su demee ba ci biir ci biir xar ñuy wax laadum ñu taamu ci nag bu gudd bu njool comme bii ngeen di gis nii tey laadum fan la jóge waaw loolu nag moom mu doon histoire bu bu ma neex question bu ma neex bu am solo soo bokkul kër gi moom anak gétt gi ci digg kër gi la nekkoon da nga daan romb gauche ak droite di romb xar yi depuis boobu nag bañ juddoo nekk ci xar yi am amour daan dem ba foire di uti ñax jox xar yi loolu nag sunu góor gi sunu pàppa ju baax ji fi nekk ñaanal sunu borom yàggal ko fi te may ko wér taatu yar yar ñu ci xar ba koroog ñu siy dugg daanaka boo ko sama première avance bi ma njëkk a jox ma romboon fii Arafat benn tulaa biir sunu benn góor bu baax yor yor ko ma waxtaan ak moom mu jaay ma ko ci loolu laa commencé yor xaru tulaa biir yeeg yooyu benn jour sama benn xarit bu ñu naan Tijaan jaar fi na ma yow li ngay xontee baax na mais. boo duggoon ci laadum yi ma ne ko tiyaan laadum yi dañ may sonal rek parce que laadum moom est-ce ak mu xar yi yamuñu parce que yi maa ngi ci gis sam bopp kuy tudd ma jaay la tabax ci jot ma jaay mënu ma fexeel xam laadum xool ko bu baax ci laa demee def visite mu yóbbu ma ci ay gétt ma xool xar yi mais ba ma ñëwee bëgguma lu lu génne sama xari sànni ndax dama gis ma ne ko kon tiyaan lii mooy laadum mënu ma lii mooy laadum ci laa jëlee sama xar yooyu jaay leen daal di commencé dugg ci laadum yi nag benn par benn daan jënd ay xaru six cent mille ba trois cent cinquante mille ci yooyu lañ tàmbalee mais xam ne élevage moom looy gën a dem rek say bët day gën a leer da ngay gën a xam xam crème bi yi gars yi di liggéey yi gars yi soxla nga koy recruter bañ demee ba foofu nag ba ba ba beneen niveau ñu jaay xar yooyu daal di commencé waat di jëndaat jaay ñetti xar jënd benn xar comme ñu yox qualité waaw comme qualité noonu la demee ñu dugg ci laadu mi nag. boobu ba léegi nag suñu borom mi ngi ciy suturaal lépp lu ñu ci bëgg moom suñu borom mi ngi suturaal nit ñaa ngi jaay ay millions mais l'essentiel na nga jaay li nga xam boo amee soxla faj ko loolu dara dàqu nit ki mën a am soxla milliard faj ko yaa nga am soxla cent mille francs wala trois cent cinquante mille jaay sa benn mboote faj ko waaw xare yi daal wax dëgg yàlla ñu ciy gis suñu bopp bu baax macha allah. ok ñu ngi dégg laadum laadum laadum Sénégal la nga koy dégg du nga ko dégg ci fenn tey euh, laadum tey ñu bëgg a xam création laadum bi tey yan xar ngeen jël dugalante ko dugalante ko ba laa laadum mën a toll nii ak auteur bi ak longueur bi mu am. waaw loolu mun na bu doon question bu am solo daanaka ba xool loolu du si ñun mooy mooy doyen ñoom Kiifa Gueye pas Kiifa Gueye ñoom ñoo commencé woon croisement boobu bañ crois bañ croisé bu benn temps bi ñoom a mënatuñ dem ñoom doyen Abou Kane jël commencé croisé ñoom ñoo croisé croisé ba élevage fi mu toll fi mu toll guddi guñ toll buñ leen wax élevage moom da nga naan parce que daanaka ba mu ñëwee yokk na ci élevage lu baree baree baree baree bare daanaka boo ko sujet fii nekk yëpp même maal yi ngay dégg concours yëpp xar boo ci dàq ma xar boo ci dàq maamam day ñibbi galoya comprendre nga kon nag moom chapeau à Abou Kane quoi di ko dafa wax mention ko jox mention parce que bu élevage tollee fii rek moom la xar bi ma yor nii foofu la juddoo waaw di doomu Grand Rane di doomu magistrat ak Linguère waaw magistrat kii moo ko jur Cheikh Diop ak Aïcha mu jox ma champion bi wax dëgg yàlla mu sedd sama xol trop parce que ba mu ñëwee moom yaakaaru moo ne sa xar bi dina mel ni moo la ne moom liggéey bu muy liggéey dafa wóor waaw moo tax ñu dem foofu jël fa ay jiw ñëw liggéey ci suñu borom xéw la ñu liggéey noonu la demee. ok xar yi dañuy dégg ñu leen di wutal tur. magistrat ah Galaya donc ak euh, raan ak ak yu demee noonu tur yi ñuy wutal xar yi cest deret bi la wala soit ay xàmmeekaay la pour wane askanu xar waaw mais bon xam nga loo gisee rek innovation daf ci am solo quoi parce boo gisee tubaab bi seen xar seen fas yi fas bu ne am na am na tur moo war a xar yi baree nii des fois nga jël sa xarit sa wóllëre xam nga tuddee ko xar kii booy xool ku tuddee booy séeréer moom laa ko tuddee muy aadama moom moo ma jox xar bi jox ma ko ci xol bu sedd guy moo ko nag naa la delloo njukkal mooy que maanaam tuddee la xar bi maanaam mooy tax gars di tuddee xar yi mais du dara tur yi waaw gis sa doom tuddee ko xar say xarit ku nekk nga tuddee ko xar noonu la demee mais tur yi moom du ci dara moom waaw bi moo ci am solo quoi. faral di dégg laadum yi donc dafa metti yor ko dundun bi xam nga cet gi fi mu war a nekk ak yooyu ak tout le temps la nga leen war a vacciner ak yu demee noonu mhm. est-ce que laadum tey euh, nekk na loo xam ne nit ki balaa mu ciy dugg il faut mu dem jàngi ko ba maîtriser ko doog cee dugg. oui surtout ça laadum moom bala nga see dugg muy lépp rek xaw nga am amour bi ba pare xar yi métti nañ métti soo amul amur bi rek yow doo ci génn boo amul amur bi da ngay teel a bàyyi boo gisee ñu ne jàng bi ak gëstu bi tarbiya bi am na solo mooy que xar yi man ba ma ci door a dugg amu ci woon benn niveau xam-xam bi moo tax jënd naa façon xar yi nga xamante ne nekkuloon pur sang yu tax ñu wax pur sang maam laadum loolu mais nekkul laadum ci biir laadum yi maam yi yi di liggéey maanaam loolu su ma amoon expérience du ma dal. léegi ba ma demee ba ci biir xam ne li lu ñuy gëstu lu ñuy jàng la ma dem gëstu ji ko jàng di toog ak ay mag ñu may wax ci xar di ma wax xar bu baax nu mu war a mel mbote ak xar bu jigéen yëpp benn bu si nekk nu mu war a mel comprendre nga moo tax ñu dem ci mag ñi di leen taataan di leen déglu ñu ñuy wax seen xam naan la xar boo koy jën bul xool bul xool bul xool phénotype bi génétique bi moo ci am solo waaw parce que gène booy kuy liggéey ci gène ak kuy liggéey ci phénotype mënuñu doon benn mais maanaam xool xar bi mu ngand nii rek xam nga xool xar bi mu nii rek nga ne da ngay da ngay liggéey ci xar parce que ngand neex na la nga jëb ko sa géet xar mën naa fekk du jur lu mel noonu waaw boo bëggee xar boo xamante ni day mel lu mel di jur lu mel di jur lu mel noonu da ngay fexe tënku ci génétique waaw bañ dem ba ci biir xam ne génétique mooy liggéey bi ñu commencé dugg ci génétique nag di xool xar yi xar bu si nekk say maam ak say lépp di la topp xam xar bu si nekk deret bu si nekk la mooy sa fort ak la mooy sa faible xam nga loolu boo ko xësee xam ci xar rek après yow da ngay daal di mën a sukkandiku ci dara pour mën a liggéey ci xar yi noonu la demee. donc expérience boobu ñaata la laaj temps bi waaw toog nga combien de temps. pour mën a découvrir loolu comme sànq ñu ngi dégg ci biir wax bi ngay doog a commencé ni ñu la naxee donc jënd yoo xam ne du pur sang mais gi dem nga ba benn instant yaa ngi dégg donc ci génétique ngay dox maanaam ci deretu xar bi kii mooy yaayam kii mooy papam fii la jógee fii lay askanam loolu toog nga ñaataat pour mën a comprendre loolu ci élevage bon loolu daanaka toog naa lu mat ay trois ans quatre ans doog ko nand parce que tamit euh, bu njëkk ba dañ ma daan tànnal mais ba ma ba ràññee xar yi kenn du ma tànnal xar gétt moom boo demee xar bii rek diwee baayam wala diwee ndeyam rek ñoom am naa am naa benn marque bu ma xam si ñoom loxo mooy seen fort fa la force day si ñoom comprendre comme que kii bu ñu ne doomu grand ran la yow amoo sikki sàkk parce que kii maam jëla jur maam jëla jël muy magistrat magistrat mooy am teg bi ne am cornu dégagé yi comprendre nga lu ma la magistrat mooy def nii léegi bu ñu ne la ki doo bu la kii surtout magistrat la rek yow amoo dara loo ci wax comprendre da ngay mën a maa loolu lu la koy may mooy maanaam nga fexe xam xar yi leen waaw xam xar yi maîtriser leen boo leen maîtriser wul rek tôt ou tard xam ma di dem ci foire yi waaw waaw di dem ci foire di visiter dem ci gétt yi di visiter nañ dem ba Thiès dem ba Mbour di xool ay xar uniquement pour ay xar xool parce que dañ na moom boo ko bëggee lu ko yonti bi waxoon rek jar naa dem ba Chine waaye mais boo ko bëggee nag xam nga da jaral lu ne waaw moo tax xam ma ñu mën a bañ demee ba suñu ba suñu bët leer nag si lañ commencé xam nga liggéey bi di jaar yoon ñu commencé gis nga di indi ay sujets yu am solo wax dëgg yàlla fi mu toll nii ñu ciy gis suñu bopp bu baax a baax macha allah. Euh, tey ci wàllu dudd di xar yi donc tey est-ce que tey euh, ci côté ministre bi ci côté état bi tey sentir ngeen seen bopp que ni ñu ngi leen di jàppale yéen éleveurs yi. ci wàllu ndundinu xar yi parce que laadum yi li ñuy dundee dafa cher maanaam ci marché bi. waaw waaw waaw côté boobu moom wax dëgg yàlla état bi euh, mu ngi ciy def li mu mën. waaw état moom mënul def lépp mi ngi ciy def li mu mën kem kàttana mu ngi koy def bu a jotee dina subventionné repas bi yenn éleveurs yi mën ko am mais xam nga yarub laarum bi dafa métti métti bi nga xamante ne moom boo xamul système boo yaree rek pare yow say xar duñu rafet doo am qualité bi parce que da ngay bëgg xar yu bari yarum laarum même bu dee ñetti xar yu rafet rek qualité mën nga leen a yor dundal leen dundal leen dund bu jaar yoon parce que man sama système wax yar moom neex na parce que fu mu toll nii ma otoguma ci xaalis waaw dama bëgg créer samay bête yu am solo tam bépp éleveur bi fi ñëw boo xoolee rek yow da ngay nangu xam nga li njëkk mooy kere environnement gis environnement nu mel xar yi ñu ngi tëdd calme lekk ba suur sangu set xam nga loolu yëpp li ñu ko may mooy que dañu am technique bu ñuy liggéeyee maanaam bu xont bi jeexee mën nañoo jaay suñu benn mbote mën nañ jaay 500000 600000 mais dañuy dem jënd xont parce que ñun li ñuy liggéey du pour léegi waaw mënoon nañ ko jël lekk xaas mais dañ li ñuy liggéey du pour léegi loolu ci kalam la waaw ci lañ dooloo mën a jariñoo ci xar mais fu mu toll nii moom waaw ñun ñooy sonn ci xar yi di def lépp mais ñun gisaguñ liñ ci bëgg ñun ci kalam lañ koy am lépp loo gis rek calcul ngay teg waaw am programme suñu programme fii ak deux ans trois ans moom mën nañoo jaay xar ay millions yu ñu neex parce que kii rafet nañ ci ay millions ma bañ parce que su ma ko jaayee nii day mel ni man xaalis laa topp man daa am lu ma bëgg liggéey pour pour gars yi respecté la sama benn pas da koy wax affaire moom day am xar bañ am bañ am xaalis wala nga am xaalis ñàkk xar parce que ñii ñëpp su toppoon xaalis moom doo leen fekk yenn xeetu xar yi mais dama ko muñ ba yenn xeetu xar yi nekk waxam kilifa gu ne la fiy ñëw nag heure bu ne lañu fiy ñëw parce que li si gën a neex mooy relation yi mu lay booleel waaw ay procureur ay magistrat ay policier ay borom daraja yoo xamante ne bu nekkoon ni nit simple nii rek non non non doo ko xam mais xar yi ñoo tax ñoom ñun ñoom ñu lay xam waaw xar yi ñoo tax ñoom ay mag ñoo xam mat nañ la bàyyi ñëw di xool see xar parce que da nga ko yor ay bét yu rafet parce que élevage moom la ñu wax ni dëgg la faa nga yor ay bét yi nga xamante ni waaw da leen di da leen di yéem da leen di impressionné waaw moo waral liggéey bi demee noonu. ok d'accord mais suñu déggee ci marché bi sur le plan commercial ngay dégg xar boo xamante ne mu ngi jar ay 16 millions 50 mhm. millions 42 millions mhm. c'est-à-dire loolu dafay xaw a indi jiixi jaaxa ci xar rek boo xamante ne nii saa it amaana da ngay rey dundee wala suwaat xam nga donc loolu ban xar mooy jar cinquante million ak xar booy jar cent millions. waaw kooku ci giir gii la rek. mooy giiru grand ran beeg magistrat beeg bëri na fii jar ñu loolu mais loolu lu yomb expliqué la parce que tamit bu fekkente ne xar bi ay doomam nit ñi dañ ko bëgg ay doomam nit ñi dañ ko bëgg ku nekk di bëgg ay doom parce que parce que boo lii continuité la rek. parce que xar yi boo leen xoolee élevage li naan continuité la mooy continuité léegi xar yi mën naa jënd yor ay femelle waaw waaw man mën naa yor ay femelle dix femelle xar bi maanaam doomam day jar lu mu néew ne saa yu juree doom day jar 3 millions 4 millions wala mu jar 1 million maximum léegi yow boo ko jëndee pour améliorer sa gétt la parce que jël nga benn xar mu yóbbu la niveau 10 mais faaw li xam nga liggéey bi dafa war a continuer maanaam faa nga pour loolu pour nga mën a croiser waat loolu pour pour xar yi maanaam di mën a am di gën a a màgg seen macération yi di gën jog moo waral gars yi di jënd xar yooyu te bu ñu ko jëndee nag franchement gars yi dañ ciy liggéey waaw da ngay da ngay juddul mbote gars yi ñoo taxaw ne la un un un un comme maanaam nga jënd xar bi 20 millions mu jural la 20 mbote nga yaak 1 million 1 million premier tour ñaata la c'est-à-dire xaalis la la moo waral xar yi moom lu ñu mënta jar amul lu ñu mënta jar amul waaw mais est-ce que commercial bi mu ngi dox bu baax am ngeen benn bërëb boo xam ne tey soo bëggoon génnee sa xar bii ah jaay ko léegi léegi léegi vingt millions est-ce am na benn place wala benn système bu commercial boo xamante ne ci élevage bi mhm. yéen ñi yëngatu ci laadu bi am ngeen ko waaw yooyu boo xool am nañ ko mooy que maanaam comme foire yi bu foire jotee nga génne say sujet comme man samay sujet ni ma génnee leen gars yi ku ñëw da ngay xool moom foire yi léegi bari nañ bu njëkk ba ay benn ñaar loon mais léegi y a des foires foires yi bari nañ am na buy am fii xaar yàlla fii le 24 jusqu'à le premier rang léegi nga génn say sujet gars yi ñoo xool apprécier ne ah yow ko sa jiw bi bëgg naa ci xam nga bu ñu la sa jiw bi bëgg naa ci ngeen waxtaan bu ngeen déggee nga jaay ko xar léegi nag visibilité boobu ngay am nag mooy waral gars yi chaque jour bi xamee ne fii qualité mi ngi fi dañuy ñëw fii pour ut si fi semence pour ñëw yóbbu ko seen gétt pour améliorer seen race waaw mais bu dee wàllu commercial bi moom côté boobu moom mi ngi dox waaw mi ngi dox ndànk-ndànk mais nag doxul en 100 pour cent mais loolu la koy may mooy faa nga xamante ak éleveurs nit ñi xam la xam boo toogee sur ko rek di liggéey te kenn xamu pour nga bëgg a jaay day métti mais boo bëgg a jaay da ngay dem ci marché bi marché bi mooy foire yi pour euh, sa produit nga exposé ko boo ko exposé bu gaa yi xoolee apprécier lu ci waay bëgg bu fekkee day jaay nga jaay ko ko c'est simple noonu la demee. ok mbokk yi ji seetaan tey comme ba pare ki nga xamante ne moo ko représenté di Thier moom lañ doon waxtaanal sànq mais léegi euh, dañ leen di ñaax yéen ñi nga xam ne yéenay seetaan émission bi dañ ko tuddee laadum donc jagleel ko képp koo xamante ne ni éleveur nga nekk fii ci réew mi di yëngatu ci wàllu élevage rawatina nga yëngatu ci wàllu xar yi donc ñu dooree ko fii au niveau de Grand yof donc daje ki nga xam ne mooy Thier représenté bergerie Khadimia nekk trésorier aussi rési dégg ngeen ko noonu mooy regroupement moo regroupé tous les éleveurs de Grand donc li ñuy def mooy dañuy bàyyi donc Thier mhm. euh, wan ñu tuuti présenté ñu tuuti gétt bi xar yi bu nekk benn benn mhm. donc ñu seetaan ko après ñu ñëwaat di leen wax ne ku ci nekk ngeen abonné pour mun a jotaat suñu prochaine vidéo beneen émission ak beneen invité mhm. donc c'est maintenant ñu seetaan Thier donc mu présenté ñu xar yi après ñu reveniraat doog a tàggatoo c'est maintenant. Ah. ki mooy Khady Ndiaye doon femelle bi nga xamante ne ndeysaan lu ñuy wax génétique rek ba ma koy jënd gars yi bëri gëmuñu xar bi mais moo boo toppee direct boo toppee fële xar bu ngande mën ngaa bañ a am résultat mais kii deret bi laa topp gis ay doomam jënd ko sama benn xarit bu baax jox ma ko muy rooso mu ñëw wàccee fi ay bett yu yéeme yéeme yéeme yoo xam te ne ba juddoo rek gars yi xam ne kon liggéey deret rek moo am solo waaw waaw mu ngi nii mooy Xadi Njaay que xar ko tuddee mooy njaata njaata njaa njaa njaata laa ko tuddee mu doon mu doon tam famille bi nga xamante ne dëgg yaa am na ci moom yaakaar parce que li ñu bëgg ci production yëpp ñu koy defal moom mi ngi nekk euh, sët ci coolu li nekk sët ci algor waaw moom tam mu doon famille bi yéeme boo xamante ne dëgg yàlla li ñu séntu si moom yëpp ñu koy jox waaw kee moom cent cent pour cent koromage la. ok jëlal kii bi. Mhm. Euh, Ndiaye mi eh xoolal waaw ah. ah. waaw leen ko ki may boo Ndiaye moom nekk doomu maal bi boo ko gisee xam ne rek moom baneen baneen baneen niveau baneen niveau la nekk dañu koy gis si côté esthétique phénotype bi génétique bi macération yëpp yëpp ñëw na li ñu doon wut ci moom yëpp daanaka booy xool gis nañ ko yaa ngi koy gis nii ci lumière bi ci mbote moo tax xar moom bay wut oh, xoolal beauté bi rek lii maa xarafa neex amour la waaw moo war a gis nga ko moom booy njaay ñoo am ci moom yaakaar trop bu doon relève gerte gi nag doon relève gerte gi gis ne képp kuy liggéey rek na nga fexe liggéey ci génétique waaw bàyyi phénétique phénétique day luñ sonn merci mbokk yi xaritu internet yi gis ngeen loolu tey euh, li leen leen indi woon mooy découverte boo xam jeune boo xamante ne nii donc mu ngi wuyu ci Thier ba pare représenté donc bergerie alxadamia mu nekk gis ngeen li ngeen fi gis mu nekk élevage nekk fi ay vraiment ay produits extraordinaires yi nga xamante ne tey lii mën nañ ko représenté fu nekk ci Sénégal ak fu nekk ci bitim réew donc ñi jar nañu jàppale jar nañu aussi tamit vraiment donc tàllal micro jar nañu set si donc li ñu yëkkati woon suñu tànk pour ñëw fas yéene génne leen wane leen donc amuñ ci benn rëccu parce que biñ fi ñëwee gis nañ fi l'élevage sans donc vraiment ak seen jàmbaarte seen xarañte donc ngeen di def lu am solo ci l' ñu ngi lay bé remercier donc di la encourager ci liggéey bi parce que c' est pas facile quand euh, ku dépare ci xar bu simple donc ba yëg ci nànk-nànk tey ba mun a yegg ci xar yu million cent mille la dépare cinquante mille tey ba ay millions vraiment kooku jàmbaar la donc jar nga jàppale jar nga remercier aussi say moroom yi mel ni yow aussi bëri nañ fii ak Grand Yoff jar nañu jàppale jar nañu remercier donc di la bàyyi nga tàggatoog askan bi donc di leen dig daje ba beneen di leen wax ngeen woy di abonné pour mun a jot suñu yeneen euh, invité merci beaucoup jërë ngeen jëf waaw moo de la fin bi mooy que ñu ngi gërëm waa kër gi surtout waa kër gi ah, ak waa koñ bi di leen baal wax ci dérangement yi xarit ñoo bëri yuuxu bëri problème gis nañ ni kër gi sax ñun buñ fi nekkul ñoom ñooy xontu xar yi waaw buñ ñu nekkul ñoom ñooy xontu xar yi xam nga te loolu yombul nga bëgg dara say famille ñëpp amul bàyyiwuñ kenn naa ah ñëpp ah day xontu di def lépp di toppatoo xari xale yeeg ñëpp waaw bu ma fi nekkul ñooy menace ñooy jox xari ñu lekk ñooy jox ñu naan te loolu moom yombul ku waroon wut surga wutoo surga waa kër gi di la ko defee kon doo def lu du leen gërëm di ñaan suñu borom may leen tawfeex ak taysiir bi li ñu siy doolaat mooy que di gën a ñaax jeunes yi rek ñu jublu ci wàllum élevage xam ni lu dul njariñ amu waaw njariñ njariñ kese la njariñ kese la yéen tamit di leen remercier tamit ci lii parce que lii tam yombul bëri na fi ñi fi nekk ñi ci ruq bi amuñu visibilité bu mel nii waxta mënuñoo dem foire parce que amuñu moyen ñu participer foire mooy yéen yéen a ngi dugg ci ruq yi di leen génnee di wane seen i produit kon nag yéen amuñu seen fay amuñu amuñu seen fay di ñaan di wax di wax di wax waa waa regroupement des éleveurs de Grand Yoff abonné na leen ci chaîne bi xam ne seen bi xoolal moo koy toj waaw képp kuy éleveurs rek loo mënti yor rek ñoom nañ dugg biir Grand Yoff génn say sujet présenté la ko xam nga bu ko defee nga am ci satisfaction totale ñu ngi leen di ñaan nag seen chaîne bi tam doon ay télé waaw doon ay télé yi ngan de ngan xam naa loolu la ñuy tëjee rek di remercier ñëpp di leen wax ni wasalaamun ala man tabaxal huda